ku Ousmane Sonko moom ma violé Ousmane Sonko moom ma tëdd kenn du la gëm waxatuma ngay wax tëdd yow tëddee sax kenn du la gëm waxatuma ngay wax violé mën na ko kon baax na mu ne ma yow bari nga caaxaan de mën na ko waa baax na après ma dem dem mu yàgg mu ñëwaat waat ko ma ko mu ne ma xam naa ne bu insisté ci benn affaire rek parce que am na lu la ciy sonal moo tax